jërëgeen jëf defe naa euh, point yi nga xamee ne que moom nañ doon euh, waxtaan tey pour euh, préparation màggal Kazu Rajab ba nga xamee ne que mu ngi am le lundi 28 moom nañ doon def et loolu mu nekk après li nga xamee ne que mooy réunion CRD bi nga xamee ne que amee nañ ko fii nii présidé par le sous-préfet Après également, euh, réunion comité régional de développement euh, présidé par le gouverneur. mu laajoon nag tey ñu ñëw aussi mën a suivre mais également évaluer par rapport ak engagement yi nga xamee ne que différents services yi jëloon nañ ko pour vraiment la bonne réussite du màggal de Kazu Rajab bi ñu defee euh, le tour par rapport aux différents secteurs muy santé muy hygiène muy assainissement muy hydraulique muy également énergie muy eaux et forêt euh, muy si également lépp li nga xame ne que moo jëm si maanaam euh, élevage maanaam santé aliment environnement yooyu yëpp gis nañ ne ko euh, li nga xamee ne que mooy engagement yi de manière générale tenir nañ Euh, mu nekk nag euh, une satisfaction mais loolu nag taxul ñu euh, mën a toog noonu di seetaan il faut nécessairement que ñu renforcer le suivi ba li nga xamee ne mooy événement bu mag bi nga xamee ne moom nañu séntu ñu mën si dem une réussite totale li nga xamee ne que mooy problème fondamental bi bi nga xam ne souvent mooy gën a ñëw mooy le problème de l'hydraulique euh, ay activités yu am solo def nañ ko parce que dafa amoon ay forage nga xam ne nekkoon nañ am baisse de production yooyu entretenir nañ nañ te bess boobu noonu c'est réglé for ki également li nga xamee ne que mooy apport bi nga xamee ne moom nañu waroon def par rapport au camion mais également au bâches yooyu am nañ ay assurance ferme que dina ñëw à partir de demain incha allah euh, également lépp li nga xamee ne que mooy forage bi panoon euh, avec l'appui de la mairie euh, def nañ réparation yi donc pour dire que sur ce plan bi nga xamee ne que moom nañu gënoon am ay inquiétude en tout cas li nga xamee ne que moo nekkoon engagement par rapport à l'hydraulique yooyu aussi tamit def nañ la tout ba nga xamee ne que dinañ am satisfaction incha euh, que kazalika même chose que euh, maanaam li nga xamee ne que mooy Senelec mooy énergie parce que yooyu tamit su su amee kii rek day am problème mais yëpp yi nga xamee ne que moo doon doléance bu comité d' organisation bi loolu jël nañ ko en charge et euh, la Senelec a pris déjà pris les dispositions pour mën a satisfaire loolu yëpp te loolu déjà mën nañu wax ne que satisfaire nañu ko. defe naa de manière générale e bu ñu fàtte aussi la sécurité tous les engagements euh, yi nga xamee ne que moom euh, moom nañu amoon par rapport à la sécuritation de la grande mosquée mais également mën naa wax ne que de toute la ville aussi euh, man naa wax ne que extérieur de la ville nga xamee ne que gendarmerie secteur de compétence loolu yëpp les services ont pris les dispositions dès à présent donc euh, pour mën a vraiment euh, am un bon dispositif sécuritaire ba nga xamee dina jël euh, dina jël en charge tous les problèmes de sécurité yi nga xamee ne que moom nañu daan am si si si si màggal gu mel nii waaw loolu moo tax avec la police un plan de circulation a été défini et que dinañ gën a mën a renforcer sur la communication principalement pour que ñu mën a xam nit ñi fan nañu war a jaar fan nañuy aaye euh, fii nga xamee ne que moom la charrette war a taxaw ak yooyu e loolu liggéey boobu euh, déjà police commencé na ko donc euh, dañ koy renforcer rek pour que information bi mën a jàll aussi citoyens yi wala ñi nga xam ne dañuy màggal see mën a xam na nañuy taxawee par rapport à ce plan de de circulation de manière globale li nga xamee ne que moom nañu jàppoon aussi en matière de santé mooy surtout les postes Euh, avancer également euh, le renfort en personnel et en médicaments loolu yëpp aussi euh, loolu nekk na en place nekk na la nga xamee ne que yemb na incha allah. fii mu nekk nii kon wax nañ xam nañ ne wàllu administration bi alhamdulilah li ñu fi wax dal na xel Mbacké jàpp nañ ne bu sunu borom dogalee lépp sotti kon alhamdulilah rek la ñuy wax. waaye wàllu waajtaayu ruux bi nag nga xam ne mooy li ci ëpp solo moom itam ñu ngi koy def bu baax a baax a baax bañ tàmbalee ci ba nëgëni di ñaan nu ko ci jàmm ak salaam. di wax ne itam ñi nga xam ne ñooy ñoo yor wate yi di indi nit ñi dana fàttali la xam ne Cheikh Mouhamadul Fadil daana ko wax nee na oto da nga naan nikk ne jàkk bu ne tacc nga ne teg bu ne yaay yi nga ne yollu kon loolu ñu ngi koy fàttali itam chauffeur yi nga xam ne ñooy indi nit ñi xam ne nit ñu jóg lañ di siyaare si seenub sëriñ di di di sàkku si aaju ju faju kon ku leen di indi war ngaa xam ne ña la nga sëf na mu toll